xadar ku julli ci bésub ajjuma gannaaw bu jant bi yëkkatikoo tuuti ñaari rakka des na ko faral ñaari téeméeri ñaaw bindal ko ñaari téeméeri tuyaaba ku julli ñeentu rakka mu yëkkatil ko ñeenti téeméeri daraja ca àjjana ku julli juróom-ñetti rakka mu yëkkatil ko juróom-ñetti téeméeri daraja ku julli fukki rakka ak ñaar mu yëkkatil ko junni ak ñaar téeméeri daraja faral ko lu ni toll ci ay ñaaw téef bindal ko lu ni toll ci ay tuyaaba boo ca julee suba ci mbooloo ba noppi toog fa di tudd yàlla ba jant fenk des na la yëkkatil juróom-ñaar fukki daraja boo ca julee tisbaar ci mbooloo ñu yëkkatil la juróom fukki daraja boo ca julee takkusaan ci mbooloo mel nga ni ku goreel juróom-ñetti jaam boo ca julee timis mel nga ni ku aj ba noppi umra ba tey ku julli ci diggante tisbaari ajjuma ak takkusaan ñaari rakka bu jëkk ba faatiya ak kursi yu benn yoon ak falaxi ñaar fukki yoon bu ñaareel ba faatiya ak lixlaasi benn yoon ak falaxi ñaar fukki yoon bu sëlmalee mu wax laa hawla wala quwata illa billahi al aliyil asimi juróom fukki yoon bala moo faatu dana gis boroomam ci ay nelaw wala barabam ci àjjana wala ñu gisal ko ko ba tey ku ci julli ñaari rakka gannaaw bu jant fenkee bu jëkk ba faatiya ak falaxi benn yoon bu ñaareel ba faatiya ak naasi benn yoon bu nappee jàng ayatul kursi yi juróom-ñaari yoon dellu julliwaat juróom-ñetti rakkaa yoo xam ne ñaari sëlmal lay doon bu ci ne faatiya ak isaa jaa ab benn yoon ak lixlaas yi ñaar fukki yoon ak juróom bu sëlmalee mu wax laa xawla wala quwata ila billahi aliyil asimi juróom-ñaar fukki yoon bala moo jóge fa mu ko doon defe dees na ko jéggal mbooleem lu mu mës a def ci ay ñaawteef moo ki waay juróom bu ñu dee ay jullit te faww dana dem àjjana ku julli guddi gaawu gannaaw sunna timis fukki ñaar yàlla dana ko tabaxal njëndi lu rëy ci àjjana te dana mel ni ku sarax mboolem jullit yépp ku ci ne lu ko suur te dana deeyaale ak gëm te dees na ko jéggal bàkkaaram yépp fa